mbokki Sénégal mbokki réew mi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 76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippi leen seen i bët te tàggoo ki nax ki ko mën laa ki koy jéem te ki ne fàng daa ne maa ngi nii nëbbatul ay mbiram. jërë jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci wasaare làmb di fi taaxirloo xibaari làmb yi tey nag demal nañ leen foofee ca géeju Cambérène Jili Kébé moom ngeen àndaloon ci reportage bi nga xam ne mu ngi ko doon def foofee mbër yi doon entraîné ay jëmmi jamono te léegi kenn mënut leen faa tegi bët foofee nag fa la ñu fekk mbër mi ñuy wax Bébé Bismi te fekk baax foofee ca Cambérène mu yëkkati message bu am solo jagleel ko ki fi nekk le président de l' association des lutteurs en activité ñu gën koo xam ci Gris Bordeaux danañ ci ñëw ci ni mu gën a yaatoo fekk nañ fa it ka ñuy wax euh, laxat ñu gën koo xam ci préparateur physique ba nekk foofee ca Rock Énergie ku wax Rock Énergie wax écurie bi nga xam ne fa la nekk moom le roi des arènes Modou Xarañ Lo moom nag laat la mu yëkkati ay kàddoom mu ngi ko jëmale ci combat bi war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo nekk combat royal bi Issa Pouye bu Parcelles Assainies moom it fekk nañ ko foofee ca marché Dior ci micro bi ñu leen doon amal ki ko doon def nekk Jili Kebe ci huis clos yi nga xam ne làmb ji ca la jëm mbokk yi ne suut bu bàkk bi daanoo ñu ñoo génn ci yaatale xibaar yi comme ni ñu leen ko waxee ci bopp xibaar yi cant ak ngërëm ñeel na ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ci wasaare làmb Jili Kebe moom la ñu àndaloon tey foofee ca géeju Cambérène comme ni ñu koy defee rek saa su nekk bu juróomi waxtu ci ngoon jotee dañuy faral di gis ay mbër fu ne ñu fexe ko fa jëm géej ngir entraîner yokk seen doole prépare seeni combat nekk noonu nag ci mbas mi nga xam ne ci la ñu toll ak état d'urgence bi couvre-feu yu ñuy préparer Djily Kébé wàccal nañu ci terrain bi ba xam ci géeju Cambérène boobee dana fa fekk ay mbër wala déet dañuy ànd ak moom ci micro bi mu ñu amal tey. mbër lañ dugg ci làmb. namm naa làmb nag ba taxaw naan hey làmb ñaari mbër yaa ngi jàppante da ngay lewaatoo <laughs> ay corona yàlla ñu yàlla àtteeg moom corona bii yàlla ñu yàlla àtteeg moom sama yi siyaar naa leen de corona moom yàlla nañu yàlla àtteeg moom rek lii mu ñu defal lii mu ñu defal kenn xamut lu mu doon rek tiis njàqare sonn metti xaw ma mbëri fan laa leen di gis jee ci yàlla jamono bi daa metti sëñ Bas ay jamono fii bu naa amuloon foo sànni mbàtt mu takk day fees dell nga gis mbëru làmb yi gis champion yi wàcc ci géej gi nga yaakaar ni àdduna bi yëpp ay mbër lañ waaye gis nga actuellement nii may wax yow ay xale nga fi gis ay ñoo xamante ne dañoo bëgg a seen état de forme moo waral ñuy entraîner di daw di ñàq pour am dara mais sportif cent pour cent ki tax ñu naan sportif muy yaakaar dundee ci sport bi moo xam muy joueur yaakaar ni ëllëg war naa mën a signer moo xam muy mbëru làmb yaakaar ni ëllëg war nañ ko mën a indi arène nationale ñoom ñëpp gis nga gisuñu leen fi kon tey mu mel ni jàngoro bi lëmbe na àdduna. mu ngi noonu mbokk yi ñoo ko gisandoo bu juróomi waxtu ci ngoon masaana jot nag ci géej gi fépp foo dem da nga fay gis ay mbër yuy entraîné yokk seen doole préparé seeni i combat donte am nañu ay combat sax waaye mbas mi ak état d'urgence be couvre-feu bi moo waral gisoo benn mbër buy taxawaalu ci peggu géej gi di entraîné gannaaw boobee nag gis nañ fa kenn rek ci ñoom ñu koy wax bébé bis mi fare foofee ca Cambérène moom nag ay kàddoom fa mu ko jëmale mooy Gris Bordeaux mi fi nekk président de l'association des lutteurs en activité ci taxawaay bi nga xam ne war na koo taxaw ci mbër yi nekk en activité rawatina ñoom gone yi nga xam ne seen i kàddu jotewut fa mu war a jote dañuy déglu bébé bis mi ci micro ji li kebe li wax nag mbër yu mag Gris Bordeaux laa li ma koy ñaan mooy leen xam nga affaire bi ndab la rek xam nga te ku si ku si nekk rek fexeel ba boo si mujjee rek na nga ko jekkal ba mu naas ñoom nañuy waxaale ñoom nañuy wax seen soxla yi waxal soxla mbër yu mag yi ak yu ndaw yooyu yëpp parce que ñëpp la war a boole mbër bu képp ku am licence rek yaa ngi si biir gi kin xam ak kin xamagul am licence war nañ xam ne yaa ngi si biir te war nañ xeexal ñooñu xam nga te Macky Sall tamit daf ñu jox war a jox ñun suñu cër ñun mbëri jox leen cër non daf ñu war a jox suñu cër parce que man mënu ma gëm ni tey nga jël benn 17 millions jox ko yi promoteurs yi nga jël sax man dama leen mere 17 millions lan la man 27 millions 27 millions lu man 27 millions lu mu boo si xëyee ndéeg mu jeex xam nga kon 27 millions yi mu jox yooyu noonu loolu du du bi affaire bi leen nag leen génn jox gars yi dañ koy génn jox ko mbëri mbëri xool nu ñu def si mën a lekk lekk si xam nga. combat Ama Baldé ak euh, Modou Xarañ Lo le nouveau de des arènes bile combat nag ñëpp a ngi koy préparé rawatina waa Parcelles ak waa Pikine naka noonee nag ñi nga xam ne ñoo fare ca Parcelles rawatina waa écurie Rock Énergie ga mu fekk baax ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax ngir xam ban taxawaay la ñuy taxaw ba mën a daan bile mbër di Ama Baldé mbëru Pikine bi laxaat bu Rock Énergie nag nekk préparateur euh, physique ci bile écurie moom yëkkati na ay kàddu nga xam ne nii mbëram amee na ko ak uh, atu yi nga xam ne am na ko ci combat bi ak lan moo koy xaar ci mbile combat dañu koy déglu ci micro ji liggéey bi. waaw Modou moom yaakaar naa ne xam nga ñu bëri dañ koo umpale sax parce que ñu ñu ngay dégg ñu naan Modou amaa ko technique wala moo ko dàq bëri xëy na dañoo xamul Modou mais ñun ñi nga xam ne Modou suñu rakk la ñoo bëreendoo ñoo defandoo lu bari mu nekk suñu rakk nag hmm. ñun Modou li mu mën ci bëri sax defu ko ci làmb. waaw te jëmmam jooju xool ko noonu rek moom ni mu toll. Hmm. doole ji weesu na loolu. te lépp lu mu am ci euh, lépp lu mu am ci làmb. lu fullaam ak fayda ak mokka may. Hmm. ak jom ju mat sëkk. Hmm. nekkul góor goo xam ne la ngay ñëw rek saa saaxee nii dem de. li ngay jàpp saxel ak li ngay fekk ma sa fait deux. yéen tey bu ngeen ko doon yabal muy bëri xale bu mel ni Ama Balde euh, te ñu bëri woon bappat ñoom ñaar am fu mu jaar mu loo daan Ama Balde mu ñëwaat. ñii nee nañ revanche la ñii nee nañ du revanche parce que mosuñoo bëri arène kon combat jànq lañ ko mën a jàppee ban conseil ngeen di jox mu Lo pour mu indi ko ci làmb. waaw Modou moom yaakaar naa ne ñun sax weesu na fi ñu koy conseillé. Hmm. parce que dafa nekk mbër moo xam ni nekkul mbër muy yenu làmb. Hmm. waaw te mbër moom du demee ba toll foo xam ne bis nu munti toll mu yenu euh, nu bis munti toll. Hmm. mu euh, mu noyal ko ba mu nooy nepp. kooku conseil ko du yomb. mbir wii kula ba léegi mbokk yi dund ci jóg ak yéen ndax euh, saa su nekk mooy animé débat yi ki nga xam ne moom mooy Issa Pouye bu Parcelles ni ñu fekk ko foofee ca marché Dior ci micro trottoir bi ñu doon amal Djily Kébé tàllal na ko micro mu daal di wax xalaatam ci wii kula boobee ak euh, lan la jàpp ne mën na koo jural làmb danuy dem déglu ko ti dellu si at da am sa mbër koñ bi am mbër xam nga ñu jóg supporter yi dem dundal làmb loolu mooy dundal làmb mais làmb du sport boo xam ne sport wii kula la xaw ma quoi xam nga làmb doon na loo xam ne jamono Sénégal ñoom sport national la amut sponsor boo xamante ni day jàppale lamb comme ça nu am bu fekkoon ne nu football amee doole lamb amee na ko doole konoon amu problème mais promoteur yi pour ñu fay mbër yi normal dañuy taxale ba jox leen avance avance bu mbër bi jeexee day dawaat di toppaat ndesitu xaalisam loolu dafa métti jërë ngeen jëf mbokk yi loolu moo nekkoon li gënoon a fës ci xibaar yi li Kébé moo ñu demaloon foofee ca Cambérène ci géeju parcelle googee doon xool mbër yi ba xam ndax ñu ngi entraîné wala déet ci mbas mi ñu toll état d'urgence beeg couvre-feu wi ana naka la ko mbër yi di dundee fekk na fa ka ñuy wax bis mi fekk baax foofee ca Cambérène muy mbër moo xam ne mu ngi wàcc kombaam ba noppi doon yëkkati benn message di ko lancé Gris Bordeaux le président de l'association des lutteurs en activité fa la ñu fekk it laxat nekk préparateur physique bu Rock Énergie mu wax ci combat Modou Lo ana yan préparatif la ñuy amal bi les rois des arènes Modou Xarañ Lo Issa Pouye ca marché Dior la ko fekk moom it mu daal di àddu ci huis clos bi ak naka la ko gisee ak fan la jàpp ne fa la jëme làmb mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci xibaari làmb cant ak gërëm ñeel na leen ñu leen di jaajëfal bu baax baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Jili Kebe ci reportage bi kàggu ak Adama ci caméra yi cant ak gërëm ñeel na leen ne suñu ñëw ak yéen ci revue daal di tëj jox leen di daje ba ëllëg incha allah ci yeneen xew-xew ci wasaare làmb saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa jàngat bu yaatu ba journal sunu làmb xëyee ci Balla Gaye 2 mbooleem combat Balla Gaye 2 yi gën a gaaw ci carrière am yooyu la sunu làmb xëyee ba mu ca jukkee nag ñetti combat la ñu jukkil digganteem ak Modou Lo digganteem ak Tyson digganteem ak Baboy ñetti combat yooyu la sunu làmb jàpp ne moo gën gaaw ci carrière Balla Gaye 2 mën nañoo wax sax ne ñetti combat yi ëppoon enjeu ëppoon coow moo gën gaaw ci carrière Balla Gaye 2 le dimanche 21 mars 2010 digganteem ak Modou Lo combat na ci combat yi révolutionné la lutte ñëpp di waxtaane Modou Lo Sénégal gépp mel ni ñaari mbër képp a fi nekk koo wax mu ne Balla wala Modou Lo bile combat Luc moo ko tëggoon le mars 2010 Balla Gaye 2 balayé ci 21 secondes bile lim doon bëri coow di bëri enjeu yépp matul 30 secondes ci 21 la ko Balla Gaye daane romb ko jàll ci même année la amaat Baboy daal di koy defal bagage le dimanche 1er mu amaat combat bu bëri coow digganteem ak Baboy bu Pikine boobee it fa mu jaar ak Modou intitulé le combat de tous les digganteem ak Tyson la woon ñu jàppoon ko le 31 bile combat la Balla Gaye 2 waxoon yépp da koo def la mu xamle woon mooy bu bëree ma daan ko bu xeexee ma daan ko rax ca dolli ne dama koy daante combat bi du durer 2 na ma ko waxee la ko defee matul sax une minute ci 30 secondes la daane Tyson jaar ci kawam jàll ñetti combat yooyu la journal sunu lamb jukki ne yile combat ñoo gën a gaaw ci carrière Balla Modou metti ga mu nekke woon moom Forza génn na yëkkati ay kàddu kàddu ya mu yëkkati bokk na ca situation làmb mag ña ko làmb booleel ña ñu jàpp ne digganteem ak ñoom ay combat yu neex la ba ñu ko laajee ci fusion Ndakaaru ak Fass la mu xamle mooy rafetlu nanu ko réunion ba Moustapha Gueye woote woon ca këram ñun ñépp ko teewe lanu nar def wax nañu ko dégg nañ ko gëm nañu ko rax ca dolli ne ànd nañ ci à pour cent yeneen kàddu ya mu yëkkati bokk na ca ña parcelle bu ñëwee bëgg naa ko yile adversaire ku ci ñëw ma jël ku ci ñëwul dangaa ragal mbiri wii ba léegi képp kuy acteuru lamb boo yëkkatee kàddu da nga ca wax jëmm ji ñuy wax père Omès Diagne kuy suivre lamb xam nga ko xalaatam ci wii mooy bokk na ci liy rey lamb lamb ji ak situation bi mu toll daal ëpp nañoo organiser ay combat sans la présence du public lamb ju amul public mook cere ju amul ñeexayem li ñu war a def daal mooy ñu def un huis clos partiel amateur yi la nar a neex amateur yi mooy duel ba Leye Ndiaye décroché diggante Nguer ak Mbaye Dieye Faye combat boobee décroché nañu ko talaata bii ñu génn lañu taxawal bile combat diggante Mbaye Dieye Faye bu jimboore Nguer bu tay si nga bile combat daal journal ba xamle mooy fépp foo ko natt weesunu ko képp kuy wër combat bu neex boo yegsee ci bii sa xol dana sedd amateur bu ci bëgg combat bu neex boo seetaane bii sa xol dana sedd li ni mel sax moo waral mu dippe ko duel a fës